biir ci biir nawet sa nawetaan boobu aussi am match yoo xam te ne ñoo la gën a marqué yan match la. waaw match yi ma gën a marqué moom bon ñetti match rek la ñett bon mooy final phase nationale bi amoo tefes ñu koy joué fële à Fatick ak beneen match bi nga xam ni Gunaas ñaari tel la mooy équipe bu toogoon 3 ans kenn gañu ko ak final régional amoo Jokko bi may rouge par tiro bit parce que si tiro bit bi noonu noonu noonu noonu la Sadio Prati bi arbitre bi jox ma carton rouge moy trois matchs yooyu nga xamni sama carrière ñoo ma gëna a marqué quoi voilà. trois matchs yooyu yéen ko gagné won finalement wala nu mu mujjee waaw ñaari la gagné mais benn dama ko perte parce que bobu nonu arbitre def na damay bouger jox ma carton rouge moy 2005 amo joko mais après bi ma 2005 bobu phase nationale bi contre Tefes maa ko gagné voilà bon gounas ñaari tamit tamit deux éditions la dama ko expliquer boy fi deux éditions la bo ñëw bot équipe bi yóbbu leen finale moy ce que je veux transmettre boy quoi ba nga équipe dañuy nekk nit quoi surtout parce que gardien moy 50 équipe quoi gardien de but 50 équipe man équipe yu nekk 50 équipe parce que lepp lepp Vous lepp dañ bi la lolu la bëgg mel quoi te commencé na quoi parce que ligue bi commencé na ñëw voilà. Kër Suma am également match boo xamante ni mun naa ne marqué na ñëpp képp koo xamante kaana muy final bi nga xamante ne amoon na fii au stade Amadou Barry diggante bokk jom euh, la euh, présentation au vestiaire li ma la wax rek gars yi dañu ma dëgg ko provoqué wala jëm leen ko parce mais man mënuñu ma parce man nee leen

finalement comme ni ñu ko bëggoon noonu la demee parce que après ñun dañoo ñàkk final bi voilà. fee bi nu mu demee jour bi dafa ñëw saaga la nga dóor ko wala nan la demee woon réellement. non non woon rek dafa ñëw expliquer foofu këpp sama gant affaire yooyu ma ñëw eh, si at bi expliquer ko at bi dé déglu ma booy Papa Ndiaye la mi ngi dund. après si la ñëw ñoom moom ne ko bàyyi li ngay def après mu ñëw commencé konne xëcc samay tuba yi xam nga dugal loxoom sama poos loolu ku kuñ ko def da ngay réagir quoi parce que loo xam ne tamit bon du respect quoi dañuy protéger doomu adama yi parce que biir biir Versailles c'est pour présenter wu mais du pour nekk fa pour indi ay coow quoi après si ko dóoree coow li am foofu mooy loolu noonu parce que man tamit bon xëy na sama température moo moo moo moo mel noonu man ku ma ku ma ku ma tooñ ma xeex yow mais après na si laa tiré leçon ni boo nekkee yenn leaders yi da nga war a yenn coow yi quoi parce que ñu bëri sax dañ doon wax ni Kaana moom naam ñëpp nangul lañ ko nekk na ndaanaan ñu bëri li ñuy jëwee Zinedine Zidane la la doon jëwee ni des fois euh, mun nañ ni xol bi daal des gaaw a mer nervosité bi day day gaaw quoi. waaw mais nit day am jiko nit koo gis koo gis day am jiko nit koo gis day am jiko quoi Zidane dañ ko fi rouge bërki démo mu mbëkkaate Mbappé gis nga bërki démo dañ ko rouge bon gis nga ko euh, Neymar dañ koy rouge Messi gis nga ko day jël ay carton rouge que bon nit la nit moo nit nit dañ ko juddwaale loolu nit day am température boo xam ne day ne si moom loo mën a muñ mën a muñ am loo am am na xam ne sooy réactionné doo doo doo ko tey xëy na noonu laa meloon mais après finalement loolu mujj naa denc man quoi mu mu mu bi gars yi xam nañ ni kii boo ko laalee du la faale mais loolu day nekk nit quoi voilà. a su nga marqué sa empreinte navétane jóge fa daal dem li nga xamante mooy championnat nga joué Jaraaf joué Port sa passage aussi si ñaari équipe yooyu nan la demee woon. waaw mais euh, mooy li ma wax booy rek boy démarrer da nga démarrer ci niveau bo xawa ba parce que dama damaa jógee nawetaan dem port jeu fa benn année fek len barrage équipe bi yëg Ligue 1 ñu ñu ñu ñoo Ligue 1 parce que euh, année bobu bon port dafa bokkoon ak ay casa poule pour pour monter c'est le seen mujjee monter quoi dem Ligue 1. bi demee Ligue 1 2 ans lañ jouer mo wone sama bop bon ay jaraaf ak ay ay yene équipe yi yëpp yi nga xamni ni mooy loolu noonu dama ñëw jaay sama bop après àll bi stop Cinéma Jaraaf ñëw jël see quoi voilà. ok Jaraaf daal lay jël si nga daal di commencé fi nga xamante ne mooy port euh, daal di def ay résultats yu am solo Jaraaf daal di lay recruter nga nga dem Jaraaf aussi jouer daal jouer fa championnat mu nekk Ligue 1 travers championnat boobu tamit yan yan yan yan match nga xamante ne aussi ñoo la si gën a marqué. waaw championnat bi tamit mooy li ma la rek ay Jaraaf Gia match yooyu maa ko góolu ay Jaraaf Gia Jaraaf ASEC match yooyu vraiment dafa nekk ay match yoo xam ne ay Jaraaf Gorée match yu métti ay Jaraaf AS Pikine fii.

ba tey jii moo bon ma am xalaatu ubbi centre pour former ay boy tey jii centre bi tey mi ngi jur loo xam ne bon ñëpp ñu ngi koy gis parce que équipe nationale U20 bi ak ak équipe nationale U17 bi ak ak équipe nationale U23 bi am naa fa ay gardien Jali démb lay soog a jógee France test centre bi moo ko formé bon ay Yego ay AS Pikine Maodo ay Papis Yego ñun ñëpp centre bi moo leen formé mooy suñuy lim duñ fi jógee góol yu bëri góolu stade Mbour bi fii lañ ko formé ay Yankoba Diatta fii lañ ko formé bon yéen wàllu góor yi nekk Sénégal yëpp fii daal bu ñu ay góolu daaru bi ñoo ñëpp fi lañ leen bon tey jii mu nekk loo xam ne xëy na li ma waroon am ci football xale yi dinañ ma ko fay quoi jii yàlla def na loo xam ne am naa njaboot goo xam ne tey jii bu baax quoi waaw ah, kon si dinaa ñëw après sax mais bu loolu weesoo sa passage en équipe nationale sa jaar-jaar équipe nationale euh, coow li da cee bëri trop quoi coow li bëri na sa jaar-jaar équipe nationale lan nga ñu ci a wax aussi après sélection yi nga am en 2002 ba ci ba ci fracture bi ni muy amee moment yooyu nan la demee non mooy li ma la expliqué léegi rek ndogalu yàlla moo ñëw ah ndogalu yàlla moo ñëw parce que tamit gis nañ fi lu ne bërki démb tour tour tour tour sama euh, adjoint Malick Daf bi ñu ngi koy jaale grand Ousmane Sy ancien gardien bon mu décédé bu gaaw sax ni bërki démb ñoo bokk match fële Jaraaf Stade de Mbour si lendemain bi la biir bi di metti après mu décédé quoi ñu ngi koy jaale waa Jaraaf yëpp parce que tam loolu dañ du ma ko fàtte quoi yëpp ñu ngi koy jaale quoi mais mooy mooy comme li ma ku xas ba dugg fa am na je bëgg gëm sa bopp moo la dugal foofu ay dafa dugal wax am selection sélection A am fracture fracture boobu noonu loolu la pas dogal bon euh, accident circulation la jombul ku nekk sama tànk bi damm sama tànk damee tamit dama pas sama bopp dama fenn di wut ndimbal gëm sama bopp ak sama volonté ak ni ma mel pas ma xam nga ma sama Il sama centre bi tey jii moom moo tax tey ba ma nekkaat li ma nekkaat nii bon mooy li ma la wax rek Sénégal moom boo fi nekkee chaque jour di nga dégg rumeur boo xam ne boo laajee bu baax genn wàll gi mooy dëgg genn wàll gi du du dëgg parce que dëgg bi mooy dëkku rumeur dañuy xëy di wax rek mais duñu xam li ñuy wax lan la. waaw parce que si loolu moo tax sax ma laaj la ci loolu pour nga leeral parce que en pleine préparation bi ñuy waaj dem Coupe d'Afrique nga nga jot a joué ak A bi. équipe A bi foofu 2-2 moo góol maa toog si bi Sénégal Mali maa góol benn mi-temps bi Tony góol benn mi-temps bi si préparation bi biñ ñibbisee noonu noonu 25 jours yi waroon dem coupe coupe coupe d'Afrique man si laa bokk bi ma si bokkee noonu noonu après ci yàlla def ma def choc sama tànk damm ñu wàññi ma bon léegi nag am ñoo xam ne dañuy nit leen la ñuy wax leneen non nii dafa caaxaan dafa def nii dafa def naa caaxaan mooy laan man international góolu ma fa yàq match nekk ma fa di coow bañ dàq ma man pratiquement ma mu jëlee foofu am na ñu naan sax indiscipline moo lu ma la Sénégal lu ne ngay dégg lu ne lu ne ngay dégg Kaana moom mooy li ma la wax amuñu naan day tux bon sax mais je m'en de ça am na day nii day def naa day def nii centre bi nga soog a ubbi dañ ngi nii ñëpp ñu ko ubbi centre am teg ñaari ballon ne dama ubbi centre de formation gardien waaw te buñ ko soog ubbi ñëpp doon wax lii nii du dem wala lii lii la Sénégal dëkku rumeur la quoi en tout cas daal mooy li may wax nit ñi mooy nit ñi bu ñuy wax nañu wax lu leen wóor bu ñu bëggee xam nañ ñëw laaj Kaana en personne man bi may góolu kenn yabu ma équipe bu ma jaar kenn yabu ma du ma jaar si équipe ñu ni kaana moo def lii wala lii ak laa voilà nag tey jii am na ñoo xam ne dañu naan moo ko yàq moo def ni moo def naa léegi ñooñu dañu jëm a fexe moo li ma leen wax rek ah, ñu am doom bu mel ni man wala ñu am rak bu mel ni man wala ñu am mag ju mel ni man parce que man tey jii su ma demee ba gëm sama bopp ba dugg ci équipe nationale bi tey jii ba am yenn visible yi waaw man man man ma man ma maa ko liggéey parce que si nawetaan yi laa jóge gëm sama bopp bàyyi fi gars yi dem góol ji Ligue 1 dem jaraaf jaraaf ku ñàkk fayda du fa góol combat sécrétaire ku ñàkk fayda du fa góol voilà am ñoo xam ne fii lañ jëm ci nawetaan yi tajuñu fenn fii lañ góolu ñaari mas ñetti mas def seen bopp ay ancien gardien mais ñun ay international lañu mooy li ma wax gars ñun xëy ñu rek nekk ay gardien ay international gardien lañ ay jaraaf asec ay jaraaf wak mas yooyu ko góolu yaa may dégg dem toog baamu équipe nationale ñaari match wala benn benn match sax kooku dañu ko a jox respect waaw mooy li ma leen wax man sama carrière bu woon damm-damm bi am ñoo xam ne duñu ma xam Angleterre laay góor ji wala ma góor ji feneen voilà. nga am fracture du tibia droit mu doon euh, loo xam te ne aussi mun naan mooy le tournant de ta carrière moo changé lu bëri ci sa carrière bouleversé lu bëri fracture boobu sur le terrain la amoon wala wala en dehors des terrains. non wax naa la ko léegi nee la fracture bi bon accident circulation la accident circulation dama accidenté si si circulation bi am fracture man dama ma si terrain. voilà dama jóge entraînement oto mbëkk ma voilà loolu la quoi. coach waaw nga nga taxawal li nga xamante ne aussi daal di former li nga xamante ne. waaw coach nga nekk aussi également préparateur gardien de bi euh, équipe nationale U23 tey ngeen nekk en plein regroupement pour li nga xamante ne moom lañ dëgmal U20 euh, li nga xamante ne moom lañ mal muy coupe du monde bi instant yi ban état d'esprit le groupe bi toll. waaw état état d'esprit groupe bi li ma ciy wax du bëri parce que ñun su état euh, coupe d'Afrique bi passé rek boo gisee équipe bi muy tourné rek nga xam ne ñii nii am nañ encadrement bu baax quoi parce que booy am nañu volonté am nañ mental am nañ engagement am nañ jeu dañ ciy yokk rek dañ ci kaw a yokkaat tuuti rek parce que liggéey bi du mu mënul doy tout tout récemment rek lañ dugg groupement tey la ñuy génn am nañ ay nouveau trois nouveau ñu nekk ay Manchester City am nañu ñaar ñun jóge Europe pour renforcer équipe bi jéem a xool waaw mais ñun moom suñu équipe wax dëgg yàlla ñun ñun ñun moy dem rek jël nañu ay match amical ay ay match amical lañu ñuy chaque chaque jour di xol di xol équipe bi ligue bi mënul doy mais nañ am yaakar rek ni ni li li ci coupe d'Afrique bi bu démé ci coupe du monde bi dañ koy doubler quoi jéem a fexe dem yob équipe bi final wala ñu jël coupe bi voilà. coupe d'Afrique nga dem également daat fay jëlé li nga xamante moy ndam parce que naam équipe bi budé ñak na final bi ya doon tagat nga xamante ñoy gardien de bii nga xamante ne mooy Jali Kobali Ndiaye daal di nekk meilleur gardien du de la coupe d'Afrique du tournoi loolu tam aussi ban sentiment nga ci am. waaw loolu tamit dañ koy rafetlu rek mooy li ma wax gars yi rek liggéey rek parce que ñun suñu objectif nekkul loolu quoi suñu objectif mooy jël coupe coupe d'Afrique bi indi ko Sénégal parce que pour la première fois Sénégal jël coupe d'Afrique ñun loolu lañ gëmoon quoi mais comme yàlla def na suñu wërsëg nekku ci ñu jël meilleur gardien jël meilleur buteur jël meilleur joueur jël fair play coupe trophée yëpp ñoo ko jël quoi bon ñuy kontaan si loolu mais li ñu gën a loolu jël coupe d'Afrique bi parce que loolu moo ñu taxoon jóg mais xëy na jour boobu. yàlla mi doon séddale mu àndal ak ñun voilà. Sénégal daal di bokk ak poule nga xamante ne mooy Tahiti Pologne ak Colombie lan nga jàpp ne mooy sensu équipe du Sénégal ci tournoi boobu. waaw ñun ñun mooy li ma wax gars yi ñun suñu problème du du ay équipe ñun suñu problème mooy suñu effectif. waaw na mat li ñu liggéey moom la ñuy transmettre ñun suñu problème du ay Pologne ak ay Brésil ak ay France ñun ñun li ñuy liggéey li ñuy liggéey la ñu gëm ñun suñu liggéey mooy li ko si daaba di wax ñun liggéey la ñu gëm liggéey ñun dañoo suñu benn de am suñu système de jeu boo xam ne équipe bu ñu ko teg di am problème ñun ñun suñu problème lu loolu la mais nekkul ay problème équipe voilà. kon su am na solo comme li nga wax liggéey moom bu ne lépp ci lañ koy tënk mais xam na ñëpp xam nañ tam différence de niveau yi bokkul bu ñu ñëwee football en Afrique waaw mais football en Afrique ak ak en Europe bokkul mais européen day ñëw fii di di jël jour. waaw européen day ñëw fii di jël jour ça veut dire di nga nekk euh, africain boo xam ne di nga mën benn. benn européen ñun loolu la ñu war a mën a dindi suñu suñu naan Europe Afrique Europe Afrique nañ gëm ni ñun football bi c'est à 11 bi liggéey bi ñu liggéey ba gëm ni ñoom ñoo ñu mën ñun ñu jëm a liggéey liggéey liggéey ba gëm ni tubaab bi mënuñu ñu parce que tout récemment lañ dem Arabie Saoudite mooy champion Asie dóor ko foofu ñaar yoon te pourtant mooy champion Asie pourquoi pas loolu mën a nekk loolu dañ koy transmettre si bopp boy yi ñu koy fanaanoo di ko lekkaale di ko tëddaale voilà mu am également sénégal yu bëri ñoom dañuy faral di wax ni bu ñu xoolee aussi yow expérience bi nga am ak vécu bi ak également ni nga maîtriser li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy domaine bi euh, vraiment li nga xamante ne moom nga mérité réellement mooy poste de préparateur gardien bi en équipe A lan ngay tontu ci loolu. yee non loolu teel na loolu loolu teel na quoi loolu teel na man moom chaque jour loolu loolu a gars yi loolu dafa teel fi ma nekk nii baax na nekk ci event yi di liggéey nit ñaa ngi gis liggéey bi nit ku ne fi nga nekk fexeel mu dox fa ñoom Omar Diallo fi ñu nekk U23 dox. Tony Silva fi mu nekk amul problème mu góol mi ngi dox Kane fi mu nekk mi ngi dox Zocorea fi mu nekk U17 mi ngi dox Lamine Thiaré fi mu nekk foot féminin mi ngi dox man daal maa ngi yéene ñëpp jàmm ku ci ne fi nga nekk mu dox ku ci nekk sa di nga ko man am na ñu naan A équipe A mais équipe A man nekkul sama mëbët dox ba pare waaw ñuy ñu ñu yéene ñëpp jàmm te bàyyi yenn détails yi nii ku ci naan nii man ba mu waxee sax loolu dama naan la non loolu teel na parce que loolu dafa teel tamit na ku nekk nekk fi mu nekk rek mu dox quoi man loolu laay ñaanal ñëpp. waaw kon suñu gis loo xam te ne jaaxal nañu ci équipe nationale yu parce que franchement bu ñu à chaque fois bu compétition bu ñu demee rek ba yaakaar commencé judd rek euh, yaakaar day day day daal di tas gis nañ ko suñu diggante ak Cameroun quart de finale gis ko aussi récemment bi ngeen yóbbee xale seen diggante ak Mali ci finale bi ñu bëri naan problème bi lan la parce que à chaque fois équipe waaw loolu moom nit ñaa ngi koy ngun-ngunee quoi mais ragal nañ daal chance moo ñëwagul rek chance dañu amagul chance pour gagner coupe d'Afrique quoi parce que tamit mooy li ma wax gars yi rek ñun am nañ lu ne lépp am nañ ko dañuy ñëw ba tiim coupe bi coupe bi jàdd mooy dañuy mën équipe sax dem final équipe bi ñu xëy na suñu chance moo ci nekkagul quoi mais xëy na incha allah coupe du monde bi ñu jëm nii mooy suñu wërsëg xëy na dinañ ko gagné quoi. ñu bëri xel yu bëri aussi daan nekk ci li nga xamante ni mooy euh, CAN 2019 bi ñu dëgmal euh, ñu bëri naan moo war a doon euh, suñu sànni tàcc comme ni ñu ko mën a waxee parce que Sénégal réel vraiment mu daal di jël coupe jot na yow lan nga gis ne aussi moom la ñu war a mën a entame compétition boo pour am ci ndam. waaw ni ñu ko entamer mooy ñëpp gis nañ ko équipe bi gën am dafet ñu ngi liggéey liggéey bu jéggi day ba Aliou mi ngi liggéey liggéey bu rafet booy ñi ngi def ay performance yu baax a baax ñi match yëpp dañ koy gañaa ah. bon xëy na tamit mooy li ma wax gars demee coupe bi fii gars yi nee nañ Sénégal toog na mais par carton lañ jaune lañ ñu toogloo ay carton lañ ñu lañ ñu toogle mais euh, élimination bi du du dañ ñu gañe gañe yooyu quoi ay carton jaune moo tax ñu toog léegi nag nañ jéem a fexe Coupe d'Afrique bi ñu jëm nii liggéey bi kon ne rek parce que am nañ ay joueurs yu am talent yu fi nekk yàlla ma ñu ndam bi quoi voilà. te am nañu bëri sax dañuy faral di wax ni ba Sénégal bu demee ci compétition comme ni dal contre Cameroun bu ñu demee ci match yi nga xam mooy à élimination directe match gën jël foofu expérience dafay feeñ te foofu dafa mel ni ñun dañ ko desee mën lan ngay tontu ci loolu non non du expérience mooy li ma wax sens la rek ay tiro bi moom ay sens la quoi loolu nekkul ay problème ay expérience bu doon dañuy gagner 2-0 si biir match wala 3-0 sax ñu ni Sénégal bu demee compétition problème expérience nangam sangam mais ay tiro but moom moo ñëpp ma xam nañ ni sens la foofu amatul ay problème ay expérience ak yooyu noonu waaw foofu mooy sànni la dañ dem tiro bit ku ëpp chance gagné voilà Sénégal ñàkk chance xëy na ñu ñu gagné ñu léegi nag man li may yokkaat tuuti rek mooy ñu jëm a defaraat suñu xol yi jëm a gën a booloo quoi jëm a ànd ñëpp nekk ci football bi jëm a duggante xam ni football bi lépp benn la xëy na yàlla dina dina dina defar football bi te jii ñu ñu ñu jël ay trophée quoi man loolu laay wax rek coach mënoo ñàkk wax aussi ci ci progression Jali comme comme ni nga ko waxee rek yaa ko formé fii ba tey mu egg niveau bi mu egg euh, daal di séduire Sénégal yu bëri ba récemment dégg nañ tamit Tony Silva ni moom buy seetaan Jali day gis boppam ci moom xale boobu progression bi mu am lan nga gis ni réellement moom moo may. waaw Jali mooy li ma la rek Jali fii la ñëwoon centre bi jóge Casamance ñëw inscrit bi mu inscrit sax li mu inscrit matul ñu dimbali ko tàggat ko voilà mu nekkoon ngor ñu ñëw tàggat ko tàggat ko tàggat ko ba yóbbu ko équipe nationale mi ngi yóbboo ci yi ñaari yu yi dama ko tek ci ban bi xol mentalité bi quoi ban ban ban façon nit la mu nek nit ku yaru tok xaar buñ ko dugalé la gagné place am bamu mu gagné place am ba légui ni ni ni vraiment mi ngi def ay performance yu a baax baax lolu tay ji Tony Silva ak Omar Diallo ak ñeneen ñeneen ñëpp ko soxla parce dañ may wo nan ma jali jali jali man len jali du jali kana, jali Sénégal la ka bon catégorie bu ko soxla dañ ko jël yobbu bon mu wara gëna gën liggéey nag bañ ni parce que tamit équipe A bi pour man dafa tel ci mom sax waaw mais comme yàlla moo ko wërsëgal loolu naa dem foofu parce que tamit burki dem la jógee France di def di def ay euh, e-, test foofu yàlla yàlla def test yi normal ba ba mu signé contrat parce que loolu day nekk ferte centre bi nekk ferte Sénégal voilà. parce que déggoon nañ ay rumeur comme quoi que Jali signé na ñi naan signéwul mais bu ñu sukkandikoo say kàddu mooy signéegul dafa ñëw pour xaar résultat test yi mu doon def. wa def a test ba mais résultat parce que nous, dañ ko le tour tour tour tour récemment na quelques jours mais comme nous avons une préparation nous ne ko Nous sommes quoi parce que nous instant bi xaaruñu test bon la ñëw match amical bi ñu joué sax le quoi mais je ni bu contrat kon suñu dégg la say biir wax tamit nga tudd ku ci mel ni Tony Mario Silva Cheikh ba ku ci mel ni aussi tamit sax euh, Joseph Antoine Bell ñu dégg ni tamit mosoon na fee ñëw ban relation nga am ak ñooñu. waaw ñooñu ñëpp samay idole lañu surtout Cheikh Antoine Bell ñooñu ñëpp samay idole lañu Tony Silva ñoo nekkoon équipe nationale Omar Diallo la même chose bon ak ñeneen ak ñeneen quoi ay Xaadim euh, Fay ñooñu ñëpp samay doom ndey lañu fu ñu ay xam fu ñu tase dañuy longonte mbalagante Amar Diallo maa ngi moom ci terrain bi ba ñu fekkee da nga naan ñaar ñi xanaa ñoo ñoo bokk ndey ndey ak baay mais noonu la quoi football bi dañoo war a mais ay Tony Silva ay euh, Antoine Bell sama idole la woon ak Cheikh Seck su ma daan seetaan surtout ay Cheikh Seck sama xol da daan sedd parce que ñoom ñoo tax ma gën a nekk gardien waaw su def Antoine Bell ak Cheikh Seck ñoo tax ma gën a nekk góol quoi ma nekk li ma nekk.